Mhm. mais am na ci certaines aar yoo xamante ne l'islam da tere. waaw lu mel yett am ruux mhm. mais bu ko defee nit ki dafay développer li nga xamante ne aar aar aar aar bi mu mën mën na ko développer ci ci yeneen ci yeneen mbir mhm. par exemple man damay damay peintre damay dessiner yooyu mais ma mhm. dessiner lu am ruux mën naa dessiner nature bi mën naa dessiner lu parce que ci loolu laa développer si sama sama sama mën-mën mais nag defar lu am loolu texte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne képp ku yett lu am ruux bu keroog àllaaxira yàlla dina la sant nga def ci li nga xamante ne te doo ko doo ko mën mhm. léegi nag ci yeneen aspect yoo ne nature la yooyu nit ki mën na ko defar développer ci li nga xamante ne mooy mooy aaram beneen bi tamit bëgg naa ñu xalaat ci xam nga dañuy wax ne tubaab yi ñëwatuñu euh, euh, tubaab yi <laughs> ñëwatuñu mhm. juste rek li paa bi wax mais malheureusement xam nga sénégalais yu bëri léegi dañuy jël fi mbir yi di ko yóbbul tubaab yi mhm. li ñuy wax ne boo demoon di génn pour dem màkk nga taseeg kaaba gi sa buntu kër foo jëm cest à loolu tamit ñu def étude boo xamante ne dafay euh, kii maa ngi jéggaluwaat ci métti dëgg la waaw hein. soxna si ne may ma rek ma nuyu mère Ngom. Ah. sama maam waaw mère Ngom. Mm. Mm. day seetaan émission bi tout le temps tout le temps. Mm. ndenkaane moo tax ñu utal ko télé ci boutique am. donc kuy bëgg ndenkaane rek seetaan ndenkaane tout le temps. Mm-hmm. nuyu leen ma ko yéen ñëpp. waaw mère Ngom ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama maam Diedhiou. maam Ngom maa ngi lay nuyu ko ñu ngi lay nuyu mère Ngom waaw mooy yaay tata abi abi yaay. ah ndeysaan nga xam ñëwoon na fi plusieurs fois. waaw dëgg la dëgg la. ñu koy ziar ñu koy ziar bu baax a baax. Mm-hmm. léegi dañuy dem régi ñëw duggaat ci suñu beneen tomb waxtaan boo xam ne du sax waxtaan bi ñuy waxtaane mais dafay bokk ci élément yi muy muy jib jarul jarul sax bu non gara garaawul jarul ñuy dem te ñëw bàjjan Louise jib dañuy gis nit ñi dañuy am ay jib des fois nga gis sa yaram ay tupp tupp yoo xam ne dafay dafay dafay mel dafay weex ah. loolu mooy jib des fois mu am tam ci tuñ mhm. des fois nga gisoon nit koo xam ne ñun moom Mouhamed Diop li may wax nii xam na ko am na suñu benn papa boo xam ni comme ñun la ma doon teint mais mhm. léegi boo gisee da ngay def ni tubaab la mhm. weer fay weex tàll des na rek ay tupp tupp loolu loolu feebar la wala waa jib li ñëw la tubaab bi di wax vitiligo euh, tubaab bi ko wax vitiligo wéttaliko waaw wéttaliko vitiligo damay laaj waaw waaw donc feebar la c'est vrai mais malheureusement feebar la boo xam ne xamaguñu origine exactement origine bi xamaguñ ko aspect bu si positif rek mooy américain yi bu yàggul dara am nañ ci ay résultats ba mais malheureusement ci ay jinnax lañ ko essayé donc am nañ yaakaar ne fii ak at yu néew dina nekk loo xam ne mën nañ ko faj

donc voilà rayon ultraviolet violet yi day day day japp yu bax ci zone yoyu mhm. donc euh, amna ay danger parce que boko ko jolee mën nga am après cancer de la peau parce que sa peau bi c'est plus très protégé waaw mais malheureusement comme xamuñu lan makoy joxé joxe mhm. ñaan tak ak sabablu mhm. di ñaanal américain yi nga xamné ne am nañ ci ay remèdes ñu ngi ciy liggéey ba promettre nañ fi ak at yu euh danañ ci am saafara saafara bi gaaw genn mhm. ndax ñu bëri bëri bëri bëri ñu koy am Sénégal nag jib dafa am lu ñu ko dëkkale li ñuy naan en général ñi am jib mooy nitu àjjana yi. parce que gis nañ ne suñu njiit yu bari mhm. ay borom ay boro ay njiitu diine yu bëri. Mhm. Euh, ñu ñu xam ci wàllu diine ñu xarañ ci wàllu diine. dañ ko am donc moo tax xam naa ñu ñu ne. ni euh, ci ànd waaw ni ci ànd ñoo ko yam xaw ma nag lu ci diine wax Sénégal nag moom même tupp yu ñuul yi tomb yu ñuul yi ñi la xaw ma këll waaw ñu ne boo ci amee set tamit yaa ngi ci àjjana ba moom xam naa maa ngi ci biir kon neex na parce que <laughs> ñun ñëpp am naa ci 14 ay <laughs> eh, set pil lañ la wax de ah. eh, kon ah. eh, wóor di ah. moom lañ ko yokk moom yokk na <laughs> donc voilà donc jib daal degré àjjana bi la nekk donc voilà voilà donc jib daal mm. euh, du metti comme ni ñu koy waxee noonu du maladie boo xam ne boo ko amee day metti

tubaab sax day jëpp. effectivement tubaab bu weex tàll la mën a jëpp voilà ah, donc tubaab non peau bi day changé. loo weex weex weex weex. Mhm. tâche jib bi ak sa yaram du nekk ben. benn. donc tubaab bu weex tàll sax mën na jib. Mm. jib moom amul race amul couleur gis nga mm, voilà. ndeysaan ndeysaan waaw ñu bëri ñu foog africain rek mooy jib. jib moom ñëpp la japonais beeg chinois yi si yam. ñëpp a ci yam. Mm. yaama. Ah. di di gis am na ñoo xam nga gis leen ñu ñu jib. sama goro dafa jib ndey faatu ngom. taar elen dafa jib. te dafa gën a yokk. te da ngeen di mu doon kay kaay leen. nit ko laaj ko nag xam nga ñu jib nag. muy jëm <laughs> kenn du yow waaw day yokk dafay yokk. ndeysaan man Hélène dama ko xool mu gën a yokk. te lim ba xool yii. la def yii. tuñ bi fii nag weextaal ak yii nii ak xarante baara ak yii. si yooyu la njëkkee yii moom jaaxal léegi ci tànk yi am ay tupp tupp nii mais moom kanam fii moom weextaal. ndeysaan dafa doon kollu sax mais léegi bàyyi na ko day def normal rek di dem ci nit ñi mu ngi noonu bi sax da koy xool ba si yàgg di ko di ko di bu amee sët bu ndaw nii. buy hmm. doog a judd ci kër gi da koy xool di ko ragal di ko ragal su màggee. day nekk wax da koy miin da koy miin xoolal xoolal kii xam nga kii ñuulul. ñuulul ñuulul dafa dafa marron mais gis nga dafa dafa dafa amee jib. te hmm. jib dafay weex moom weexaayam moo kii nag waaw ñu bëri sax ndeysaan bëri sax dëgg la. laay xam nga ñu jib waaw ki ma xam dafa yaakaar na dafa jib may jibul mm. tata da nga yaakaaroon da nga jib may jibul parce que parfois dañuy jaawale ndoxum ndoxum siti lay am de temps en temps yaakaar ni jib effectivement moom laa koy wax parce que li Louise expliqué lu si bëri ndoxum siti la nit ñi di am yaakaar ne jib la alors que jib dafa nekk loo xam day évoluer en plus weexaay weexaay ay tâche lay doon donc loolu la mais di wax par rapport ak euh, Michael Jackson lu mu doon wax gis nga léegi boo xoolee Louise boo xoolee star yi surtout mannequin yi mannequin yu jub yi ñoom la ñu gën a fay. parce que léegi dañuy affiché wu. mais man nga ni dégg mannequin yu jub yi. Ah. ay mannequin boo xoolee. am yu ak mannequin albinos. ils sont les mieux payés mannequin ñi nga xam dañu amee. albinos hmm. maanaam puune. nekk puune waaw. ñoom la ñu gën a fay li tax dañu leen gën a fay parce que dañuy affirmé wu dañuy wane seen seen. puune te xam nga tey kiy jaay produit dafay bëgg nit ki à l'état sauvage façon produit euh, type de peau boo am nga mën koo traité. donc ñoom soxlawuñu benn Louise boo xam ne elle a la peau parfaite li ñuy soxla mooy mannequin boo xam ne comme ñëpp le commun de la population dañuy am ay imperfections. pour ñu parfaire ko. donc tey jii nii moo tax nu bëri ñi ngi am. jib wala ñi am problème yu ni mel. dañuy jéem a fesi euh, jéem a affiché wu pour wane ne ñoom vraiment amuñu benn problème. Mhm. bu neexee yàlla li jàmm rek a lay dal. <laughs> laal na ko xoolal xoolal bi Oustaz Oustaz Mohamed. Ah. xam nga moom li may wax ñun moom. gën a fay mu toll nii. ndeysaan ndeysaan yu mag yëpp. mu nekk ah ki man ki man kan la cosmétique. produit maquillage yëpp dañ leen di ñoom la ñuy wut parce que ñoom ñooy mannequin yi nga xam ne ñoom la ñuy gën a euh, seet instant bi. Mm, ndeysaan ah dafa stylé kay macha allah ndeysaan ndeysaan euh, Oustaz Mohamed ñun moom am nañ ci ah. waaw maam tubaab. <laughs> ah Oustaz Serigne Babou mbuur buñ la wonee ay photom démb nga gis ko tey da da ngay xaw a jaaxle moom jibam daf ko def mu weex tàll waaw ba ay sëtam di ko wax maam tubaab ndeysaan moo papaam ñoo bokk ndeysaan ndeysaan waaw maa di ko nuyu moom ñu euh, mu nekk ci ci man tey moo ko def ci man mhm. yàlla na ko yàlla sàmm amiin yàlla dolli ko defal tawfiq mu nekk kenn ci kàngamu réew mi donte ni ñu bëri ci réew mi xamuñu ko <laughs> dafa jib effectivement bi ñu nekkee xale eh, dañ daan dégg ni jib nitu aljana mooy jib <laughs> loolu moom Sénégal dafa mm-hmm. ak eh, këll yu ñuul yooyu nga xamante ne moom moo nekk ci ci nit ki mu mm-hmm. daan wax ne boo ci amee nangam je me rappelle bu ñu nekkee xale dañ daan compter man ñaata mm-hmm. laa ci am ak yooyu mais loolu eh, wax la rek boo xamante ne nit ñi ñu ngi koy wax en tout cas feebar la boo xam ne euh, ni ko sénégalais yi nangu ñen ñenn ñi mm. waroon nañ ko mun a nangul yeneen feebar yi mm-hmm. par exemple sénégalais yi ni ñu nangulee feebar ci ku jib warees nañ ko mun a nangul feebar ci ñeneen comme albinosek euh, albinosek yooyu je pense que ni li ñuy wax ne euh, nitu aljana moo moo koy dal mm. pour dëfal ki nga xamante ne daf ko daf ko daf ko daf ko dal pour mm-hmm. mbir mi nekk loo xamante ne lu oyof la ci moom mm-hmm. di ñaan yàlla yal na yàlla yombal xam-xam ba xam-xam mën a dem ba trouver loo xamante ni moo koy moo koy a pourtant des fois nag dafay rafet de mm-hmm. non non bu demee ba égaliser ni <laughs> waaw a nice mais tamit mi ngi exposé yaramu mi ngi koy bu baax a baax te baaxul dëgg la kon ñuy contre le soleil bu baax a baax a mais effet secondaire après yu metti dëgg la mm-hmm. dëgg la ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen di di ziar élément bi solo ndax dañ ndax xam du mm-hmm. mais comme la li nga dañuy dem ci waxtaan ay waa Régis jaajëf ñu ngi leen di jaajëfal mbokk téléspectateurs yi tey li ñuy waxtaanee war ko jël mu war a wëy ak ñun ba alxamis ak jàmm incha allah moom mooy éducation maanaam naka la ñuy gérer suñuy gone pendant des vacance maanaam vacances yaa ngi ñëw man sax damay wax ni sax moom éducation moom amul vacance ak ñàkk vacances. wax dëgg yàlla éducation moom mooy li nga xam ni borom bi subhanahu wa taala dafa bind doomu aadama ba pare nag utal ko ay limite utal ko fi muy jaar utal ko fi muy aw. utal ko fii ne ko fii ngay commencé fii ngay yem bul def lii lii nga war a def loolu mooy éducation eh, bi yàlla bindee suñu maam aadama rek dugal ko aljanna ne ko garab yëpp mën nga koo lekk ba des benn loolu mooy éducation muy ifaal ak la tafaal muy defal lii def lii loolu mooy yar ñu jublu si nag eh, ci li nga xam ne moom mooy vacance gis yenn parents yi dañuy xawa a léeg-léeg sàggan bu vacance yi jotee demal faw yi léeg-léeg ñu jël ko yóbbu ko fa xam ne bu fa vacance bu ñëwee mun na yàq ay jikkoom wala mu indi ay jikko yoo xam ne kenn doot ko mën a ti gérer ñu gis ne comme ndénkaana moom askan bi la fi nekkal te askan wi bu ñu koy wax dañuy njëkk ci tuut tànk yi nga xam ne ñooy màgg nekk magu ëllëg mag ñi seen wàllu wéy na xale yi ñoom ñoo fi des kon bàyyi leen xel dafa am solo waaye surtout suñu diine daa bàyyi xel li nga xam ne moom mooy yar éducation daf ko bàyyi xel torop ñaaxe képp koo xam ne da nga yor responsabilité sa loos dafa am ñoo xam ne yaa ngi ci téye leen ñu ñu ñuy kiyee ci yow maanaam ñuy xool ci yow nga am loo war a mën a def ci ñoom arab bi tuddee ko ñaari baat rek taxliya ak taxliya muy def ci xale bi ak dindi ci moom lay pay mhm. nan nga déggee éducation ak naka la ñu war a gérer sunu doom yi eh, ci trois mois yi nga xam ne day ñëw rek jàll te lu ne nag mën na cee xaj mhm. ndax lu ne dina ci xew nag trois mois vacances yi soxna Zeynab thème bi dafa ñëw si heure am li tax dafa ñëw si heure am mooy parents yi dañu amoon ñu leen di aider si seen doom parce que école da doon yar élève bi bu jàngee école daf si am part de responsabilité boo ñëwee ci kër gi bu wàccee peut-être 18 h ak yoy nga ci kii mais légui xalé bi dafa am vacances nek ci kër gi fofu nak responsabilité parent bi dafay nek euh, je dirais que dafay total amatul ku mu koy partager nan lañu wara def suñu quotidien wu journée parce que tey jii nii xale bi nga xamné ne jàngiwul dafay am jot certes deug la xalé bu jàngee 9 mois pendant 3 mois vacances war na ci noppala mais 3 mois vacances nan la kay défé amna na benn mois 1 mois bo xamné peut-être mom lay noppala beneen un mois boo xam ne dafay allier jàng révision a noppal ko. Mm-hmm. troisième mois bi nga xam ne mooy waaj a dugg nag si année scolaire bu bees bi mu nekk mois boo xam ne si lay commencé cours de vacances mu nekk nag problème bi si biir timing bi maanaam heure bi xale bi tey ju muy bu muy xëy jàngiwul mën nañ ne xale yi dañuy am trop de liberté te foofu si fan la si parent bi la parce que tey jii nii soxna Zeynab parent bu si nekk war nga sa doom bu jàngiwul nga créer sa biir kër. pendant trois mois. vacances wallaay ñu de dafa am ku nekk si ligne bi. ñu jël allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi ñu ngi lay ziar. yaa ngi maa ngi delloo ziar bu baax sax. ah alhamdulilah. man la Pape Omar. ah Pape Omar. <laughs> nam rek. papa man ñoo dara maa ngi jégalu de démb maa ngi jégalu bu baax. non non amul problème. dama ko yéex a gis waaw. dañu dañu dégg dañu déggantewul ci jëli bi yëpp. waaw nag naxare ma ndax installé ma jot la pour baal laa. dëgg la yow ameloo kenn àq macha allah. surtout nag mère Thiam non mère Thiam. mère Thiam waaw mère Thiam moom. Pape Omar du xàmmee nga ko. waaw waaw waaw Euh, Pape Maguette mu ngi woon fa am solo maa ngi déglu ci daggit moo koy dagg mais mu ngi woon fa am solo. Mm-hmm. Euh, xam naa su ma coupé mu duggaat fa mais li ngeen di waxtaanee nii. Mm-hmm. dafa wax ne dafa ñëw ci waxtoom mais wax na dëgg. xam nga li gën a doy waar mooy dafa fees jot. Mm-hmm. parent bi daal ni nekk ku ma noppalu ko. waaw. daal di jël doom bi sànni kenn dootu ma woon ne ko demal géej wala mu seet keneen koo xam ne kii naaw na la mu ne ko demal fa vacances sonal kooku noppalu moom la waaye dafa yaakaar boo xam ne xamul fan la jëm ak moom dëgg la dëgg la de kon damay faral di wax ni njaboot yëpp njaboot yàlla la mm-hmm. waaye njaboot bu mag bi nag ñooy kilifa yi ñoom lañu yàlla dénk njaboot bu ndaw bi kon responsabilité bi ci tub mm-hmm. moo xam vacance ak lu dul vacance dëgg la te xale soo ko occupé wu mu occupé boppam mm-hmm. te xale nag bu ñu occupé boppam mooy fo ak caaxaan. dëgg la bu mag day rëccu mere la bi nga xam ne yaa ko waroon teg ci yoon. dëgg la dëgg la. kon ne xale yu ndaw yi dellu ca daara ja profité ci comme école nasaraan moo fi gën a yaatu. Mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo mat di jigéen nañ toog ci kër gi jàngi liggéeyu jigéen mais góor ñi sax fekkee seen papa dafa am métier na leen di yóbbaale ci atelier ñu am seen métier bàyyi surtout loolu waaw loolu am na solo dëgg la dëgg la Paa Omar voilà loolu laa bëggoon wax wax leen nuyu naa leen rafet na namm nañ la namm nañ la <laughs> maa macha allah ñëpp a ngi lay ziar di la bégee eh, maa ngi jërëjëf yaa jërëjëf Dieng ñoo gën a kontaan merci jërëjëf jërëjëf merci Pape moom ci ñun la bokk macha allah ñu ngi nuyu waa Tëngéej yëpp nit ku baax la jërëjëf. fu mu fu mu daanelee sax soxna Zeyna fa laay jëlee parce que foofu laa doon jëm. mu nekk responsabilité léegi si parents yi. Mhm. ñu war a créer environnement. environnement bi mooy gis nga ki nga xam ne jigéen la. occasion la pour mu jàng liggéeyu jigéen. Mhm. occasion la aussi si mu noppala ko. mais aussi doom bi nga xam ne tey jii nii dañ doon wax waxu métier. ku si nekk sa fi ngay liggéeye vacances am nga temps. ça te bu dee benn yoon si semaine wala deux fois sax ngay dem di liggéey ànd ak sa doom. Mhm. bu dee environnement liggéey bi permettre na la ko mu xam daf koy permettre ñaar. Mhm. mu xam li ngay daj pour dundal ko si ngor mais daf koy permettre mu xam ne nit ki pour dëkk bi nu mu mel. Mhm. pour nga réussir faw nga boole ñaar. mooy jàng ax liggéey. jàng pour am diplôme mais après boo paree am diplôme mën a liggéey. mais tey jii nii problème bi mooy wax na ko vacance da ngay bëgg yóbbu nit ki sa doom mu vacance yi. pendant deux trois mois dinga am di nga am tranquillité mhm. sa doom du nekk doo ko dégg doo am problème ainsi mais bu ñëwaatee boo amulee chance dafay nekk benn travail boo xam da ngay recommencer waat tout à zéro mhm. parce que yow li nga bëgg sa doom pour mu éducation bi nga bëgg mu am ko ni nga bëgg mu mel ko mhm. yow yaa si defal sa bopp boo ko joxee Louise Louise nu mu bëgg doomam mel noonu la koy def mm-hmm. nga jox ko oustaz Mohamed nu mu bëgg doomam mel noonu la siy def donc yow li nga bëgg sa doom mel ko mm-hmm. yow yaaka si mën a def mooy nga jéem a créer benn environnement xale bi tey jii nii technologie avancée nañ mën nañ leen wutal ay jeu ay play lu mu mënti doon mais lépp mu nekk tamit vacances du trou de liberté gis nga soxna Zeynab dañuy bëgg liberté ba nga xam ne am na ku nekk si ligne bi allo salaamaaleykum aleykum salaam soxna Zeyna. laa ku baax. waa allo waa. na nga def sama turandoo doom sama soppe. ah ndeysaan ku baax naa la ziar ba yaa ngi ci ziar na. waaw alhamdulilah nag sama turandoo. sa turandoo rek bari affaire waaye melul ni yow. <laughs> ñu ngi lay ziar bu baax sant alhamdulilah. kontaan nañ ci émission bi. ñoo gën a kontaan ci sa woote. ma waaw man waa Thiama daa mel ne xàmme na la de moom. xàmmee na ma. Ah. sama kooku sama bos la. Eh. waaw sama bàjjenu doon. naa la géej ci loo ne. sant yàlla bu baax. yàlla sant yàgg lebu. amiin. naka ba desee. damaa mais mi ngi fi mu ne chaque jour ma seetaan la. wallaay kooku sama yaay bopp la. kooku mhm. su may sànni xeer sax mu du xeer bong bong la. dëgg la. ak yow moom yàgg maa bëgg bu baax ak ma ñegee. yéen da ngeen jël seen télé yëpp yàq ko ndax DTV ndax man. ah mi ngi noonu yow rek yaa loolu am na moom gay lébu. kontaan nañ ci émission bi. fukki penc yeeg naar yow diine bi rek tax mu bëgg ko yàgg yàgg ngeen a def de. <laughs> dara la du Malick jërëjëf ngay kontaan ma ko ma naan ko sama turandoo doom bi wax. sama Zeynab ya. <laughs> day muul dina rek leen ñor kër googu de. may na xam may nag namu naa jërëjëf Guèye. waa kay kontaan nañu. yow dugg ci carte di ma jërëjëf ana ngi alhamdulilah. ba mu ngi koy xool bitim réew moom tamit. waaw dinaa ko su ko defee wàccee na koy seetaan sama xarit bi. waaw kii kii kii cousinu sax Mansour la. Ah. Gorog Bassirou jaañ la. dëgg la kay. waaw allo sa doom yi ñu ngi lay nuyu. maa Ajara maa ngi lay fay maay seen bàjjen ah. maa leen ngénte woon. nga jox ma téeméeri junni yax maak sama askan ñu faram fàccee. jërëjëf Guèye. moo naay di nga maa sa waaj du dugg ci kat bu amee oto sa danaa mën nañ ànd inauguré ko nga ne du dugg ci 4-4 rek. di la mbële bu ko jigéen joxee 4-4. Ah. da ko ma ñool ñu dem foo bëgg ñu roolee ko taal bi man ko Touba amul mën nañ dem loo bëgg rek laa bëgg. ndeysaan ndeysaan kii. boolewul daraa ki wax. waaw kon loolu nag tey macha allah. kan ah Dóor de xanaa dinañu utal élément mayte mayte après nga utal ñu élément ci jëm ci Dóor ndax sénégalais yi yeewu xam nga mooy Dóor ak ay façon. léegi sax da nga koy jàpp. bëgg démb Jupiter dafa ma doon wax ma def spécial Dóor. mais xam naa ne mère Thiama. non mère Thiama non mayte il faut mu indil ñu élément ci Dóor ndax tey dañu war a xam. façon Dóor ak Dóor ah Dóor Dóor. Dóor marto mais li wax lu baax mooy Dóor. waaw ah, wax nga lu baax de yow lu baax rek ngay wax nag waaye da ngay jaawle des fois géew ba ak émission bi moo suñu problème ñun kat xam nga ñun. ah fi nga ko amee dafa yëngu. ah deret sa deret mooy yëngu ah, yow bu ñu nee yontu yàlla mu diin rek nga nga nga ne. subhaana wa taala defar ba mu baax ku nekk ci li nga mën a nekk. ah Louise bu ñu nee santé. Louise bu ñu nee santé rek Louise nii waaw parce que tu sais bu ñu nee aaye. kii nii Mohamed ñëw jottali aaye wax daan ne nii nii loxo bi eh. daan yontu yàlla sa de. kii bu ñu indee. Eh. daan ne certes certes naan je m'excuse <laughs> non je m'excuse. yaa ngi tax may toj sàmm tout à fait tout à fait xaw ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ndanane may ma wax. Cheikh Ndanane may ma wax may ma wax ah am na tigam boo xam xaw ma ko may ma. may caa may ma. dëgg ma jox la exemple. ma jox la exemple. waaw moom exemple la ñu kii boo ne kii boo waxee mu daan ne. ki la sang ki la ki la tëw xamul moo la moo la xaw ma laal. waaw moo la ki la teral moo la tëral. waaye mu toogee ci plateau bi. maay ah. gay woote waaw sama mbokk waaw maay. maay gay. Mm-hmm. maa ngi wala Maña Gueye woote. waaw wala Abdou Dar bu woote. Mm. damay jëfu. dëgg mm. yow yow sama am na ñoo xam dañuy bëgg a dugg. dëgg la xoolal barki yàlla sa sama xarit yi. Mm. Maña musul am télé yi ndax jëkkëram ay kii la seetaan ay parabole am ak yooyu am sa télé Sénégal. waaw maa tax ñu def seen néeg. dee nekk xale DTV. wallaay wallaay da ngay mbokkum Sénégal. waaw dañu ko doom ji moo ko ne maman dama demoon bëri ko mu ngi caama papaam indi télé ne dafa maa bëgg bu ba jëra mhm. maññe teg ko ca néegi heure bi mu nga tëdd di seetaan jëkkër su pare moom ci yooyu dafay xool ci YouTube bi amatuñu beneen tele Amadou Ba tamit sa kii la sa xarit la Amadou Ba sama sama Amadou Ba sama nijaay lay àndal Matar Ba Matar Ba ministre bi kooku kii ba moo tax ma xam ko Karbala wax ba ministre bi de Matar Ba bu baax bi suñu Matar Ba <laughs> kooku mooy suñu sensibiliser kooku mooy kii Matar li nga doon def meccaam waa meccaam. éducation la ñuy wax xam nga meccaam day lii du éducation parce que ñu si kër gi def moo leen yaax. doy na ku wax sax ñu yaakaar da ngay dóor mais yàlla xam na ne xam nañ ñu baax ñu bari <laughs> mais baax na rek di di wax ne. soxna seen doom ji tamit kenn gënu ko ci man de. kante bi ma jàkkaarloo. ah waaw. macha yaay baax moo am bonofice nag. waaw dëgg la dëgg teral moo la yëkkate. dëgg waaye ki la toroxal. Mm. moo la ñëw te man damaa ñëw ci kër gi xale yëpp def ma meer meer meer kii. Mm. man na mu ma dara ndax di dénkaane. dëgg la xale yi boo rombee ñu ngi lay teral. Mm. ñoom ñuy suukar koore ba tey ma nga ca kër ga. Ah? mais kenn doo nga fi joxewu muy kan. malien malien malien. <laughs> moo ko def ki koy joxe da ngeen di bokk dëkk dëkk ci dëkk bi yow nee moom léegi nekkatul Sénégalais kay bu ko laaj sukkur koor toj na dëkk bi peccum ginnaaw nga ni xam nga dañuy fecc dem ci kanam ah. moom da ñu ne fekk ma secrétariat daat ma nuyoon teeg man mm. ma ma ne maa ngi nii waaye de damay dem sama yoon émission bi dafa jeex moo jaaxal ñëpp léegi laa yow eggaleen député de xoolal moom ñu ñoo ko moom lu mu fi def. lu mu fi deful. yow bu dul woon ak jëpiteer fi nga toog doo fi toog eggalee. eggalee yow sa xarit la man sama xarit. waaw sama xarit la moom soxna soxna pour hmm. wax ne éducation tey jii nii dafa dafa dafa baax. Hmm. Euh, vacances yi ñuy gën a vigilant si xale yi. Hmm. mais aussi am na ay daara comme yow lu si mel ni sa daara dafay am daara vacances xale bi aussi dina ko permettre. ñu jàngal ko éducation religieuse mu dem foofu noonu jàngi fa wala am na ay patronat yuy am yoo xam ne communauté yi dañ koy organiser après midi bi ay 13h 15h. 17h mu nekk ñu ngi jàng leneen dañuy. effectivement te lii tam jàng ko dafa baax de. si dafa baax wala wala wala dul camp de vacances yi sax dañuy hmm. gis ay colonies yoo xam dañ koy organiser de vacances dafay ah, permettre gis nga tant que mi ngi am day tax xale bi bu année scolaire jotee mu mën a jàng parce que danaa dina am leneen lu may am dëgg la caam dengli lay li laay wax macha allah ci éducation. waaw ak ci vacances yoy xam nga 20 ans yi passé ku ne xamoon na vacance da nga daan gis man dama daan vacances fi ku ne xamna mës nga vacances dañ na dama ñu bëgg ci école tëjee ya dem sa tante diw. Mhm. bo fa démé pour xamanté la ak ñoñu tamit yarala la. Mhm. waaye léegi kenn butu sa doon dem vacances ndax de dégg nañ tem terme yo xam dañ nan dañu bëgg yow nga noppalu. waaw sonal pour pourtant du loolu de sa doom dem si kër tàntam tàntaam xamanteeg ay doomu tàntam ci vacances loolu loolu du sonalaate hmm. man gis naa xale boo xam ne day vacance di vacances ba bi mu amee bac xoolal mu bàyyi dem vacances su ko defee waa kër gi na waaye suñu vacancière bi ñëwul ñu naan léegi jànq la xam loolu yàgg xamante la ba mu gi moom tàmm na sax ni école tëjee rek war na dem kër kër kër kër Khady Camara école bu tëj rek Khady mu ndaw jóge na Ngunjaan acca da koo tàmm ba nga xamante loolu dafa bokk ci ñoom waaye léegi dañ naan duñ dem kër diw ndax dañu sooy man leen kër yi de kër yi sax xatatul xoolal ñoo xàcc nañu léegi bëggatuñu ay nit. léegi Sénégal dañoo tubaab bi ba mu ëpp dañ naan bu kenn ñëw sama kër vacance. ba pare kër yi tam dañoo xat des fois. yaa kër du xat xol mooy xat. ah waaw hmm. yow sax yaa ma gën a kër du xat xol mooy xat. Hmm. waaw ñaari chambre ak benn salle. nga yor fa amal nekk dangay tëdd rek lekk bu jotee ngeen lekk. Mhm. jotee ngeen naan bootoo ci kenn sangoo ci kenn su guddee ngeen tëdd. Mhm. bu ñu xëyee def la ngay def ñu def ko. man dama daan dem vacances yàlla dogal nag sama doom musul dem vacances sax. am na nag ñoo xam naan jamono bi dafa métti nit ñi. Mhm. da nga yóbbu sa doom mu dem vacances yi ngay séntu ci buy ko lu ne presque utal ko valise. ak yooyu loolu tamit te jamono bi dafa soo nekkee sama sœur ma nekk sama kër aw ma doole. école bu tëjee. bay ubbiwaat di nga ma dimbali ci ek xale yi. mais ki nga koy yóbbul est-ce am na doole. waxuñu day du jox jox bi mhm. man na su ma amoon ay doom dañuy dem vacances sama kër mbokk yi yi ma ne ku ñëw indi vacances ma waajul dara su may dem yooyu bàyyi la su may dem xew yóbbaale bu ñu ànd dem yóbbaale soo dem xew yóbbaale ko jàngal ko nu ñuy léegi ko du ñëw sa kër nga <laughs> dama ko naan su ñu ànd nga may mayor boo nga ñu waxtaan papa ne ma yàlla tere bu ko jàngal wayaat dama bëgg mu jàng moo tax man kenn ma jox sa xale mm-hmm. moo tax ma damaa wér sax di bëgg naa ñu ma jox ay xay wax dañ naa met caama fu mu jëm day ànd ak gune ga tàmbal ko xaalis yàq doomu jaam duma sax xaalis waaye dama koy tàmmal daal li xew ci jamono lekkal naa nan xamal lu baax mais léegi colonie de vacances moo xew dañuy jël quatre vingt di wala cent mille francs fay ko sa doom dem koy de vacances bu fa demee lu mu fay jàng fecc way film bu ñibbisee jeex na cent mille francs yi nga koy fayal boo ko joxoon sa mbokk mu dem vacances ci moom man de góob mooy man daal vacances laa gëm. bu njëkk ba mais Thiam li woon dafa woon ni de. bu njëkk ba ñun ñëpp dañ ñun dañ doon dem vacances yi. man maanaam vacances eh, jamono bi fu mu toll léegi da gis benn Louise yaakaar ni moom macha allah. jeexlewul dara. nga jël kii jël Mouhamed Diop daan xaaral sa mu dem ci bàjjanam laay pay na ma yóbbu ko ci bàjjanam. waaw loolu ma dem ci tàntaam. waaw loolu la woon ak bokk la woon ak bokk la woon mais non mais gàtt xel a ngi ci nag. ah mhm. gis nga yow daaw dem daaw dem vacances Casamance. waaw kaay wax la ñu kaay wax la ñu vacances. soxna Zena li lay jàpp mu ngi tasaare sa doom yëpp. ah xoolal man Abdou Fall dem pour vacances bu demee yow doo dem tool. soxna Zena. je suis pas d' accord avec vous. non non je suis pas d' accord xam nga xam nga vacances dafa grave. sama yaay laa àndal. man d' accord naa gaa ci li mu wax. non mbokk bi. waaw c' est normal que ñu koy ñu koy ñu koy. parce que bu ngeen nekkee xale yaay xoolal sa doom. est ce que xam ngeen tourne kii bi li ñuy def nii fi mu jëmee sénégalais bañ mi ak vacances ci singularisme lay lay day dem ku nekk sa mbokk sa mbokk bu amul xaalis rek doo ko dem seeti. mu ngi xoolal gis yaay koo xam ne seen yaay dañu bokk ndey ak baay. waaw doole yemul sa doy bu ñëwee. yaay kii kan la. doomu tante diw façon yooyu man j'aime pas man daal damaa bëgg nit dama bëgg man daal ponk ma nit ma nit laa man sama doom fee lay dem sama mbokk yi nga xam ne sax amuñu doole fa laa gën a bëgg ñu koy fréquenté parce que ëllëg dafa doy waar am na xale yoo xam ne nag seen yaay ak seen papa yi su luxe amul duñu dem foofu dañuy dañuy tànn sax ay xarit da ngay tànn sax ay xarit mais xam nga la dañuy bañ hmm. euh, sonal keneen noppal sama. mais lan moo sonal keneen. waaw ma expliqué la. yow yow dañu ñëw vacance bu njëkk ba man bu njëkk ba man man dafa ñëw ci man yu njëkk yi dañu amoon xel. am na ku nekk si ligne bi ñu xool ku nekk si ligne bi. man la sama doom day dem keneen dañoo ci man allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam wa rahmatulah. soxna Zeynab Fall maa ngi leen di ziar. maa ngi lay ziar wala ñi ngi lay ziar ñun ñëpp. waaw di rafetlu émission bi. bu baax a baax. ñu ngi rafetlu sa woote yaa ngi wootee Kaolack ñu ngi nuyu waa Kaolack yëpp waaw dafa mel ni ci sujet bi ngeen di wax dafa am solo lool. Mhm. te responsabilité bi ñun parents yi la. ndax mhm. kenn ci ñun ku nekk soo rappelé li la sa wala ki la yar doon defal bi nga nekkee xale. Mhm. su masa ba école su masaan tëj gis ki ma yar man li mu daan jëkk def mooy jël sëriñu naar indi ko ci kër gi. jël. ku jóge sëriñu naar bu jógee ci sëriñu daara. waaw waaw. wala indi ci kër bay. mu ñuy jàngal si alxuraan. mu ñuy jàngal alxuraan dañoo bàyyi alxuraan. Mm-hmm. jël suñu lépp jox ko tubaab bi. di dem ay colonie de vacances. fecc mm-hmm. tëgg ak way lañ fay def. Mm-hmm. nañ leen dellu ci yàlla ndax ñu yoreel nañu si waajur yi njukkal ndax li ñu def si ñun. kon maa ngi ñaax bopp ñaax parents yëpp.

jikko yu rafet ak li mën a baaxal suñu ëllëg suba. noppaliku mooy changer du leneen. noppaliku du tool noppaliku mooy changer kon li suñu bàyyi defoon ci ñun. ñu dal nañu bàyyi vacances yi pays suñu doom yi di leen jàngal alxuraan loolu rek laa amoon lu ma wax maa ngi leen di sant di leen gërëm di ko rafetlu. rafet na macha allah jërëjëf. la suñu suñu demain alxuraan la amul leneen. Mhm. jërëjëf. dëgg la. dëgg la ñu ngi nuyu waa Kaolack yëpp <laughs> kontaan nañ ci woote bi jërëjëf merci beaucoup. man fii laa doon vacances Kaolack. lan nga wax euh, Badiane lii. Kaolack laa doon vacances. ah la nga doon vacances Kaolack non mais juste pour dire que dafa mel ni. Hmm. suñu suñu suñu maam yu njëkkee ñooñu dañoo ëpp xel. Hmm. gis nga yóbbu sa doom mu dem vacances. Hmm. man maa ngi fàttali moo doon dem vacances. Euh, ak sama génération ñi ma xam ñu doon dem vacances booy dem dañu lay taxaaralal ravitaillement nga yóbbaale. loolu amul léegi. dañ lay taxarale ravitaillement nga yóbbaale mhm. chaque weer bu dee ñu yónnee dara li yëg lii waaye jël sa doom yóbbu ko fenn trois mois mu ñëw nga di ko enquête mu ñëw nga di ko enquête waaw est-ce la est-ce que ñu ngi la doon yónni kuy raxas bool yi foofu guddi dañ lay yónni nga génn yaa ngi jàngal sa doom muy wax lu dul dëgg di nettali mhm. yaa ngi koy jàngal leneen ak leneen bi lu ci waaw seetlu leneen li ci ëpp man de man soxna Zénab mm. li gën a graaw ci vacances mooy tamit man ñaari affaire laa ci contre mooy da ngay noppal da ngay bëgg noppal sa bopp da ngay jël sa doom yëpp am cinq doom yëpp évacué tas leen say mbokk nekk yow kese sa kër. Mhm. noppalu yaa ngi sonal ñeneen. beneen aspect bi mooy fi nga leen di yóbbu xale bi tamit day jëli ay jikko. waaw ah, am na ko yóbbu woon ay doomam de tas ko rek fu ni mu yóbbu fa. voilà waaye ku dem rek ñëwaat na ko sama bàjjen nee na li la jàpp moo ko jàpp ba doom yëpp dellusiwaat ci biir kër. exactement donc éducation bi. Mhm. et je pense que thème émission bi éducation bi lañ ciy xool. par par mhm. rapport voilà yar bi yar bi. yow yaa ngi liggéey liggéey bu am solo ci sa doom pendant 9 mois. Mhm. yaa ngi xool jikko yi yaa ngi koy canaliser bul wax bu baax bul yuuxu bul wax gros mot lii ak lii ak lii xale bu demee jàng yeneen jikko. Mhm. ñëwaat donc sa liggéey mi ngi ñëw mi ngi reprendre à zéro xam man d'accord naa dem week-end ñëwaat. mais wajur fuite de responsable weesuwul nga jël sa doom pendant 3 mois wala pendant 1 mois sax dafa ëpp bàyyi ko fenn si àll. bu fekkee koy bu koy def vacances mu fay def. trois mois non non bàyyi man gaa d'accord naa man ma jël sama doom. yóbbul ko mère Thiam yóbbul ko Oustaz Mohamed mais naa xam ki ma koy yóbbul kan la. mais yaa ngi koy sonal yaa ngi koy sonal. collège mag yi a personnes spécialisées yu fa nekk. bi dafa gratuit c'est pas gratuit. y a des personnes spécialisées parce que ñoom dinañ la jàngal. nooy waxee nooy comporté woo nooy def. mais problème bi mooy boo ko yóbboo feneen. man sama doom ba am 16 ans. quatre ans six ans la commencé colonie vacances colonie parce que déjà voyage dañuy voyager ak colonie soxna Zeynab xam nga la métier am bu mu ñu waar métier am bu mu ñu waar yéen ñëpp dem ngeen vacances ñun ñoo ñun ñëpp fecc nañ sabar fii ba taxaw xanaa yow de mun naa feccoo sabar waay waaye xam nga ne yow fecc nga sabar man fecc naa sabar fecc nañ sabar ba rap mm-hmm. mais suñu kër laa ko jàngee ba dama expliqué rek moo tax ma ne la sabar boobu divertissement moom ñu ëtt boobu lañ ko woon tëggee sama yaay di tàgg ñuy fecc asamaan yi xool moo tax moo tax ma ne la divertissement moom cooyee dafa benn fet dem leen gis nga maire yi. am nga yaa ngi dem fuural. déedéet xool aw dama may mu neex. waaw may ne ma ñu ma ko tuddee. léegi nag dem daara rek may joxe xool la ñuy wax dem leen kër tante ñu ne kër boo demee dañ lay yar nga suñu nee toog leen ci bank yi. dañ lay yar. yaa ngi dégg bu ma la wax. dañ sama yaay daa wax dem eh nga seeti diw dégg bu ko diw mu ne eh sama yaay mu ne jël bank nga toog man damay taxaw. ñooñu toog bu ko defee ñu ne billaay doomu ñooñu kay mun leen yar mais gis nga ñooñu dañ lay yar nga toog ci bank fa lañ doon vacances mujj gi man parce que ñooñu boo xëyee dañ la naan dama ndekkee fonde jël sa téere téere ñu ne fer nga ijji mhm. je me rappelle fer nga ijji fa ngay jànge bu vacances jotee boo ñibbee su la fi yónnee sax nga bañ parce que paa bi ne la lay teg ci yoon mhm. xam nga kon mairie xam na fi ñoo teg seen tànk nga naan sabar sabar sunu kër lañ ko doon jàng. waaw moo tax ma ne la xamal la xamal la bu mu ñu waar xamal la ah. bu mu ñu waar. mooy vacances yi colonie de vacances baaxul foo ak kafre na nee na dem leen jàng alxuraan jàng alxuraan d'accord dañuy jàng alxuraan forcément waxuma suñu jàng alxuraan de dama ne waxuma sa loolu de dama ne. pourquoi ngeen mais nee na li xewoon dañ ko din tey. dañ ko dindi xam nga sa <laughs> <laughs> gu ne man nuñ ma lëjëlee hmm. nga xalaat ne buñ demee ci keneen voilà ah, ah dañu mel noonu non mais mën nañ dem hmm. gis nga man la laa gëm si vacance bi hmm. mooy yow yaay organiser sa sa temps da ngay gis ay parents yoo xam ne bu xale yi jëlee vacance waxuma la vacance euh, trois mois yi de vacance ah sax ñu ne xoolal si amati nañ problème man moom su ma sa sama doom bi di xëy chaque jour mais xale itam dafa laaj muy noppaleku dafa laaj muy dallu toog ci këram papa mag yaayam nekk fa boo wàccee mercredi soir ni jàpp say doom xaaral boo wàccee mercredi soir jàpp say doom seen loxo yóbbu leen parc mm-hmm. des fois nga wàcc jàpp say doom mais bàyyi ma pare boo boo des fois nga jàpp say doom dina woon non mais si tu veux moom bañul ko vacances yi mais bëggul doomam vacances ndax bëggul neen ko ku sama day bañ a sonal mais coono kese la ñiy dem vacances ku ko wax ku ko waxul yëpp sa doom yaa ngi leen teg coono yaa ngi teg coono fi ñu jëm xale dinañ yuux dinañ bëri dinañ toj dinañ yàq nee nañ ko bañ tujali gone doo am koo yónni <laughs> il faut ñu supporter seen yuuxu yi supporter seen coono yi. mais tamit jaaroon nañ ci ñun ñëpp. soxna ah, soxna Seyna waaw ah, mais def naa thème bi mooy naka lañ leen di gérer ci vacances. exactement euh, cest à pour ñu kiiwaat mais lool yëpp dafay dugg ci kii bi parce que. li ñuy discuter nii bu nekkee problème mu yenn parents yi seetaan mooy ne du ñu gérer seeni seeni doom man fi may njëkk a waxee moo di ne lii laay bay wax hmm. moo di ne euh, xale dañoo war a xam ne dañuy tabax avenir am hmm. oustaz Arfan mus nañ ko laaj ci beeru koor bi fii nii ci alwasaaya mu ne lan mooy temps mu ne temps mooy dund hmm. kon sa xale da ko war a tàmmal que vacance yi dafay participer ci tabax sa ëllëg mhm. kon da nga war a def lépp loo xamante ne moo lay dimbali pour sa ëllëg baax léegi nag fii la problème bi nekk man boog nit ñi dañuy naan oustaz Mouhamed kan ngay noppaliku dama am sama benn xarit jazahullahu xayran am na théorie buy wax ne noppaliku mooy nga changer activité bi nga doon def Mm-hmm. man loolu mooy sama noppaliku. sax dañuy wax ne noppaliku noppeeku gën est-ce que nit dina noppi ci àdduna. cest noppaliku du du ñëw toog cest dire li ñuy wax xale bi dafa war a noppaliku cest dire xale bi dafa war a changer li nga xamante ne mooy na mu doon doxalee. activité ak xamul noppaliku effectivement. Mm-hmm. mais na changer kii bi léegi nag problème bi mooy ne waajur bu organiser wul nan lay organiser doom mm-hmm. c'est-à-dire waajur bu organisé wul moo xam ne mënut a gérer temps wam mm-hmm. nan lay nan lay gérer li nga xamante ne mooy njabootam. Mm-hmm. suñu problème ñun ci Sénégal ñëpp moo di ne xamuñu comment gérer nos enfants pour que ñu mën a jëriñoo ci li nga xamante ne moom mooy seeni i. Euh, seen seen seen seen seen certes euh, bëgguma dugg ci colonie vacances wala ñàkk colonie vacances parce que ak i façon wu colonie vacances am. yow xam nga dara ci colonie vacances waaw xam naa euh, mais colonie am na am na colonie vacances yoo xamante ne ni ko sama yaay waxee ndaw ràbbin gu tàng jër lañ fay sansal c'est-à-dire loolu. taxul woon lu loo xamante ni moom la ñuy kii parce que li may wax mooy vacances tout le temps dafa war a participer ci tabax ëllëgu xale bi. Mhm. lay pay bi muy bi muy wax sànq am na benn wala xaw ma soxna Louise la bàjjen Louise euh, benn kii ma xaw ma première mois bi nangam la deuxième mois bi nangam la troisième mois bi xale bi doog a def cours de vacances am na ku ko wax. Euh, ci ci yéen ñaar c'est-à-dire loolu dafa dafa am solo ci première euh, ci ci ci ci biir vacances, bi waajur bi dafa war a participer ci éducation wu xale bi mhm. mooy développer li nga xamante ne mooy esprit moo tax yenn jeu de loisir yi nga xam ne c'est éducatif mu am solo nga xam ne nit ki mën na fo mais fo boobu dafay dévelop dafay participer ci luy développer li nga xamante ne mooy xelam nga xam ne da koy waajal ëllëg ak si biir bu delluwaatee école léegi nag ñun nan la ñuy fexee ba xale bi dina def li nga xamante ne moom mooy euh, euh, épanouissement dina ko dina ko am mais épanouissement boobu dafay participer ci li koy xaar ëllëg mm-hmm. foofu mooy foofu mooy nekk problème mu nekk tamit beneen wàll moo di ne ci vacance yi war nañ profiter pour tàmmal xale bi parce que personnalité xale bi la ñuy tabax mm-hmm. bokk ci personnalité mu xam ay mbokkam mhm. dafa war a bokk ci biir trois mois de vacances yi ñu suñuy jaboot ñu leen di yóbbu ñuy dem seeti seeni mbokk soxna Zeynab euh, man man man loolu daf maa yitteel euh, gis nga bi may bi may defar sama plan wu kër. Mhm. dama prévoir néeg boo xamante ne appartement boo xamante ne néeg ak salon pour parce que dama ne man yàlla damaa nattoo ay jigéen a topp ci man. Mhm. te seeni doom dañoo war a ñëw seeti seen dijaay mhm. te loolu dafa war bokk ci loo xamante ne tey jii dafa war a duggaat ci biir yar bi ñuy yare kii. tey jii nii soo waxee ne nit ñi euh, vacances xale bi bum dem seeti kenn. cela veut dire que ne yow yaa ngi wax ne. parce que bu sama kër. attention c'est différent. non euh, non waxuma bàjjen Luis euh, waxuma bàjjen Luis. waxuma bàjjen Luis xam tey boo. dem yàgg bi laa wax dem yàgg. waaw d'accord non je ne suis pas d'accord je ne trois mois nga dem yóbbu parce que l'islam daf ñuy jàngal ab diyaafatu. naan ko indil trois mois mu. amul amul mu mais amul Abdou Fall nga. Euh, euh, kii nii euh, trois mois de vacances yi. ak yonent bi dafa dàq loolu moom. non trois mois de vacances man dàq man foofu d' accord naa ci moom trois mois parce que yow tamit da nga war a am loo def ci sa doom. mais tamit danga nga war am loo xamante ni vacances ngay xaar pour def ci sa doom man loolu. xam nga lan moo tax. vacances xale bi dafay dem ci biir li nga xamante ne mooy école bi. yow tout le temps yaa ngi gën a mais foofu vacances occasion la pour papa ji école bi li mu def ci xale bi trois mois yi papa ji gën parce que si ngay gën am jotaay ak kii mm. gis nga man man sama doom amagul quatre ans de ah mm. wala si lay doog a yem mais su ma toog ak moom damay wax ak moom parce que dama jàngee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ne buy wax ak xale mm-hmm. waxut ak moom en tant par rapport ak aadam mm-hmm. da doon wax ak moom en tant que doomu aadama nit nga xam ne damay wax ak moom ci ay mbir démb rek sam rappel sama mag dafa ñëw ci kër gi mm-hmm. mu ñëw taxaw ma ne ko talxa nit ku baax dafay nuyoo talxa la tudd talxatul xayr mm. <laughs> yaa ngi dégg mm. démb si guddi ma ànd ak moom di doxantu mm. mu ne ma papa papa Malick ñëw na ci kër gi bi mu ñëwee nuyu naa ko mm-hmm. bi mu ko nuyoo jum naa mu nuyu ko n'est-ce xale bu baax loolu lay def mm-hmm. ma ne ko waa xale bu baax loolu lay def mm-hmm. c'est-à-dire li nga mën courtoise xam nga dañuy wax ne laaib wala daka sabaan mm-hmm. na nga fow ak sa doom sept ans na ngay fow ak moom ci pendant sept ans yi ci sept yi bi mu commencé kii nii yaa ngi koy wax ne demal jàngi école bu ñëwee yow soo toogeek moom li ngay toog ak moom mooy jàppale ko ci révision bi boobaa dafay xaw officiel lu lu bëri li wis wax dama ci d'accord nga léeg-léeg ànd ak sa doom géej jàngal ko nan la ñuy toogee géej ànd ak moom park jàngal ko ci biir animaux yi yow yaay xam ni nga xamante ne ñun dañ daan dañ daan ànd ak suñuy papa yi kii ñu ñuy jàngal màggaayu yàlla subhaanahu wa taala ci biir parc mhm. mais pas dem foofu rek kii ni mais yow yow yaa yow yaay xam nan ngay gere sa sa sa ànd ak sa doom di génn dafa baax dem dem mais dafa ngeen fàtte Oustaz Mohamed dafa am lu ngeen fàtte bi moo am vacances trois mois papa ji ak yaay ji est-ce que ñoom am nañ vacances. loolu moo <laughs> tax a <laughs> ah, foofu gis nga léegi nag foofu est-ce ji ñoom. ñoom ñoom xam nga amuñu léegi bu boobaa. <laughs> Hmm. si la papa ji si laay wax ne mooy mooy tëral benn programme boo xamante ni. waaw ah, Ousseyn Mouhamed ñu ngi seetaan kenn tëralul programme. mais dañu leen di tëral programme de. mais soxna Zeynab soxna Zeynab tey jii nii kii seetaan xam nga euh, si ndénkaane bu daaw. Hmm. si la benn waay seetaan. Hmm. daal di ñëw ne ma. musuma woor weeru koor mais yéen laa seetaan moo tax ren woor naa ko ba mu jeex ah, ah. kon am na ku ñuy seetaan koo xamante ne doomam musul woon xalaat que ne vacance moom dafa war a jàpp ne xale yi nañu tambaambalu yow yaa ngi ne da ngay wax ak sa doom mi ngi am 4 ans mais am na koo xam ne doomam bi am 20 ans xam nga lu ñu seeq kaay def lii kaay def am problème éducation communication dañu am problème éducation dafa am ay normes dafa am nit ñu ko jàngalee surtout ñun ay julit lañu même ñeneen ñi pour wax la nit nit ci boppam islaam dafa ittewoo nit ñu tabax ko pour mu nekk nit mooy li may faral di wax wax naa ko laay pay mhm. man na ko man sama daara du damay ittewoo jàngal xale bi rek pour mu mokkal mais éducation mooy affaire bi mais ñun am nañ uti yi am nañ matériel bi mi ngi ci kër gi mais xamuñu naka lañ koy gérer. léegi léegi nag foofu la vacances yi ñu parents yi dañoo war a xam ne dañoo war a exploiter vacances yi ci luy continuer tabax personnalité wu seen doom. tabax ëllëgu seen yàlla nañ ko tal toog yàlla nañ ko tal war a tal léegi ku ko tal ku ko talul man foofu mooy sama problème. ku ko talul éducation du 3 mois eh, vacances. Euh, nga ne yàlla nañ ko tal gis nga ah, euh, euh, gis nga. am na jot wallaay am na koo xam ne. Mhm. am na sax jot mi ngi ci këram mais dafa xamul

xam ne soo ko négliger sa doom mën na ci jëlee ay lacune ak ay erreur yoo mhm. xamante ne da koy topp dundam yëpp mhm. kon waajur bu nekk dafa war a xam ne trois mois de vacances vacance lañ ko tuddee nii mais dama sama doom ba léegi maa ngi euh, war a veiller ci luy ci luy tabax li nga xamante ne mooy kii mhm. man foofu damay dolli di sof ni waajur yi li waa ji dëkk Kaolack wax tamit nañ ko bàyyi xel yóbbu xale yi tey jii nii man sunu maa ngi jégal su may joxe exemple ci sama bopp euh, bi ma ñëwee vacance euh, bi may doog a pare jàng dama ñëw ma gis ne vacance xale yi koñ bi dañuy dañuy taxawaalu uh-huh. ma insister def daara boo xam ne kenn fayul uh-huh. kenn daara vacance daara vacance kenn fayul. Mhm. nit ñi ñoom dama ko limité woon. nit ñi ñëw di indi seen i doom ba fi mu toll nii alhamdulilah vacance bu jotee damay ubbi daara boo xam ne kenn du fay nit ñi ñëw di jàng parce que da ngay participer ci loo xam ne moom nga mënal sa gox. Mhm. ak wan waajur yi ne seeni doom mais xale yi bu ñu jàngee ba heure wàcc jot dañuy dem football léegi yooyu. mais ñu gérer seen seen seen seen temps. Mhm. am na benn expérience boo xamante ne Arabie Saoudite lañ lañ ko gisee nga xam ne. waa ji dafay wax ne ñoom dañ doon gis ne xale yi suñu wàccee parce que Arabie Saoudite ñoom euh, huit heures la ñuy jàng ba une heure mm-hmm. à partir de ñoom journée continue la ñuy def léegi ñu xool ne loolu xale yi seen doom yi commencé nañoo yàq parce que seen temps bi bëri bëri temps kon nan la ñuy gérer temps wu xale mm. xale da nga koy jàngal nan ngay gérer ce temps sans autant mu mu yëg ne yow benn gendarme nga bu taxaw ci kawam di mm-hmm. ko di di di ko kii mm-hmm. léegi nag foofu moo nekk problème waajur yu waajur yu ah, mm-hmm. yar yar yar yar wañ nga li olof naan wañ ngaa nga bàyyi ko ci mbañ jaxaan nga bañ a ca mbañ waaw c'est que yar dafa dafa dafa dafa nekk lu jafe ndax li gën a métti ci àdduna mooy yar mooy tabax doomu aadama mm-hmm. yonent yi yàlla daf leen a woon fii pour ñu tabax nit ñi defar leen mm-hmm. eh, man damay wax ni parent bi xam nga dañu jël thème di ko waxtaane te mu nekk loo xam ne actualité la mm-hmm. mais yar vacances ñàkk vacances sa doom mi ngi jàng am na weekend normalement parent bu nekk war na may doomam ci heure bi ci journée bi. Mhm. benn heure boo xam ne da ngay toog di waxtaan ak moom. Mhm. gis nga communication. Mhm. moom mooy éducation. gis nga quatre ans yi sa doom am ngay wax ak moom. da koy topp à man sam papa li ma doon wax ba léegi dafay ñëw ci man. damay wax ba mu yàgg man sam papa na ma nangam. ne woon na fexeel koo jëflanteel bu la jéppi. nit daf lay def dara nga toog naan bu ma ko jàppee mu di la déglu ba nga pare mu woo la la boo fayoo lu mu lay jëriñ la wax xale nga. ne la boo fayoo après yow ban résultat nga ciy am yooyu mais tey parents yi amuñu jotu seen doom yi ñu ngi topp ci dawum dërëm mm-hmm. jàng nga ko jàng nañ ko nekkul jirim mooy koo xam ne parent am dafa génn àdduna mm-hmm. mais jirim dëgg-dëgg mooy ki am papa ak yaay joo xam ne mi ngi daw dërëm papa joo xam ne lëndëm lay génn lëndëm lay ñëw bu ñëwee asalaamaaleykum yor na journalam di liir sangu na taajal nañ ko leer reer jabaram jaagar jaagar yi ana doom yi lan lay def ci ñoom mm-hmm. kër yi dafa am lu fa manqué muy amul waxtaan kër yi amul communication kër yu bëri duñu communiqué mhm. doo jiite sax sa njaboot pour ñu julli léeg-léeg yow nga jug dem jàkka ji julli bàyyi sa doom yaa ngi tëdd léeg-léeg xale yi am ñu yàlla yar ñoo jug dem julli bàyyi la yow en tant que parent bi mhm. léeg-léeg nga sol culotte ci kër gi ñu gis ne yenn parti yi nga xam ne islam daf la wax warta feeñ mi ngi feeñ xale bi yar moo gën a jafe ci àdduna ñun ñi nekk ay yar kat xam nañ ci dara mhm. mais waajur yi caama nañ yëg ni dañ leen koy laaj ëllëg yow man xiyaam waajur bu nekk sàmm nga li nga doon sàmm dañ la koy laaj bañuñu kenn jël doomam yóbbu ko mu vacances mais ci kan lay vacances mhm. jël sama doom yóbbu ko foo xam ne bu ñëwee sàcc ak fecc la may indil ak buy wax di regaju ak buy wax di telli telli ah. caama de waxuma la walaay caam yow defoo noonu doxoo ci loolu caam billaay waxuma la caam ah waaw kii rek ah <laughs> fi nga yóbbu sa doom nga seetaan oustaz Mouhamed Diop xëy na neex na la nga ni man da sama doom naam maa ngi def ci moom ndax man def bi du ma ko xaare vacances mhm. chaque jour war nga def ci moom mhm. nga ni man oustaz Mouhamed Diop ni ma koy seetaane am xam-xam naa essayé yóbbu sama doom benn semaine mhm. mu changé air changé waat beneen jaww am lu mu jàng indaale ko. dama koy wut semaine weer nga fay wala ñetti weer. Ah, waaw waaw mën weer lay bañ da ak ñaari weer dafa métti. na <laughs> da ngeen def colonie 21 jours ngeen euh, fay def. 21 jours mais sa xaalis. 21 euh, jours bu dul tamit ñi ñuy fàttali ñu foogee am na mm. man par exemple ñëw naa sa daara. 5 mm-hmm. heures ngay yeew pour wax ak xale yi. 4 heures 4 heures du ba pare. Mm. au delà de jàng bi yaa ngi leen di jàngal àdduna di leen wax ne au man bëgguma dama bëgg ñu jubbanti la ainsi de ba pare ne képp ba pare foofu diggee la képp koo xam ne génnee nga sama daara. doxin lu safaanoo tooñ nga ma waaw loolu yàgg na ko kon à partir de là segam yow mi nga xam da ngay jàngale ñu jox la. Eh, yow eh, juróo dañoo jur indil la waaw. ma la ki jur ko jur doomam <laughs> te tamit même chose yooyu noonu ñiy mhm. jàngale enseignants yi noonu la ñuy chaque jour loolu la ñuy parce que imagine toi ki nekk si école bi di jàngale sax mhm. tey problème bi éducation bi mënti am yëpp euh, enseignants yi ñu bëgg ko wala ñu bañ ko dañuy am classe salle de classe yoo xam ne quarante cinquante élèves mhm. ku ne xam na ne élèves cerner ko xale cerner ko yombul. donc yow mi waajur bi trois mois bi nga am occasion la nga gérer sa quotidien wu doom parce que même bu dee école di nga xam lan la daan def. Mm-hmm. gérer sa quotidien yow tamit nga jéem a si sa temps. soxna Zeynab da nga ko wax gis nga dañu yaakaar ne doom mënal poos rek la wala yuuxu bu baax na de temps en temps sax ngeen toog di <laughs> seetaan benn film gis nga mm. film yi ñuy wax wala télé ne baaxul mm. am na moralité bu ñu siy tiire la nga pare ne ko lu tax lii demeex moom. ngeen waxtaan si mu tiireeg moralité bi. day da ngay seetaan film gis ne suspense am na si mu réfléchir mu pouse intelligence am si muy xalaat. Mhm. donc tey jii nii. da toog ak sa doom ngeen di seetaan benn film. mu am ci lu doy waar mu pare nga jàngal ko li ci baax ak li parce que même. mais soo ko euh, privé lépp. système bi daf ko koy jàngal feneen. maa ko ci dara. Euh, euh, même lu bon sax. Mhm. man dama gëm ne même lu bon. boo ko toogee di ko seetaan a xale mën nga si jàng lu baax. reyante. waaw reyante. parce que di nga ko ne boo reyee yàlla dina la si dugal ah, ah, ah, safara boo reyee di nga yàq sa àdduna di nga dem police di nga dem boo reyee dina am lu gën a metti loolu mooy sa conscience doo tur deret baaxul jàngal ko loolu la même je veux même li bon li mën nga ko fi jàng mais loolu nag xam nga la da ngay am jotam gis nga soxna Zeynab bu ñu amee lido lido lido xale bu ci néegam ba mhm. montel ko la fa la fa muy seetaan mhm. loolu la mel def ci kër ñu portable lañu ah, luñ bëgg a xam ña ngi ko cay xam moom man yow yow da leen wax rek man de vacances rek laay dem yow Eh. dañ ko de day ñëw de <laughs> dara ci moom. ja alxuraan lañ koy jàngal kon. ñu ne yàlla ko benn bakkaar day ñëw de. <laughs> kon bu desewaatee ci plateau bi beneen mère Thiam yaay moo la jóg kon day gis beneen yaay. <laughs> dinaa ñëw bu dee keesu sax daa ñëw vacances. Ah. waaw tàggoo naa tàggoo baax bi. Eh, léegi léegi foofu beneen. as waaw su am problème ci xale yi ngay fanaan daara la kay. kon ci daara ji lay ne. waaw ah. man dama jàng si. waaw. kër daara moom ko fa vacances jàng. maa ngi dem ci Adama Seck ah foofu fa la njàng mi wulee ñaayee nag Adama <laughs> amul génn tàkkusaan dem tuur tuur dégg nga euh, euh, yi par rapport ak vacances dañuy jàpp ne vacances bu ñëwee liberté égal liberté du liberté mhm. liberté ci xale bi dootul amati heure u tëdd mm. liberté ci xale bi lu ko ah, neex lay lu ko neex lay sol. Mm. commencé na bi nag. waaw moom laa ci jublu. Mm-hmm. liberté xale bi na tàggoo. Mm-hmm. mais fu muy dem na naa ko yëg. Mm-hmm. or loolu warut a nekk li nga xamante ni moom mooy. Euh, mooy vacance vacance bi. vacance tekkiwul liberté. ki la ki la booy xool ci wàllu doxalin. ci la gën a gérer wala ay waajuram gën a jàppale mu gérer vacance am mhm. moo doo leen doo leen doo leen yem mhm. da ngay gis vacance sax dis na ci jàngal xale jom mhm. man maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale suñuy moroom ñi nga xamante ni seeni loxo yi waajur jotul woon seeni ginnaaw vacance lañ daan am jom préparer li nga xamante ne moom mooy seen année scolaire wut li nga xamante ne mooy fourniture yi ñu war a yéen gis koo xam ne dina dem jaayi ndox jaay jaay jaay jaay ndox. Mhm. gis koo xamante ne dafay dem manœuvre def kii ni manœuvre pour am pour am dara kon nga gis kon vacances day jàngal xale ci ki ñu ki ki ki ki ñu éveiller conscience am. Mhm. ni danga nga a am jom. Mhm. mooy li may tuddee tout le temps vacances dafa war a participer ci forger ak tabaxaat. personnalité nit ki. ba nga xamante ne du du bàyyeeku. waajur yi nga xamante ne ñoom la lu wis di wax ñun tamit dañu leen war a wax ne li ñuy def du yoon. moo di ne yàkkamti nga non yàkkamti nga vacances bu jotee huit heures bu jot ngay nelaw surtout samedi ak dimanche ak yooyu parce que lu ñu mun ti wax sénégalais yëpp boo jëloon ñiy liggéey ci biir sénégalais yi bëriwul kon am na waajur yu bëri yoo xamante ne ñu ngi fi majeure partie sénégalais yi mm. ñoom liggéey liggéey liggéey liggéeyuñu mm. mooy ne vacance bu jotee ñoom dañuy nekk ci biir kër gi léegi parent yi génn dem grand place dellu si waat bu dee yaay yi d'habitude ñu ngi ci biir ñu ngi ci biir kër yi mm-hmm. mais yaay ci boppam xamul sax nan lay gere temps am kon kooku booñ ko dimbaliwul ci ni muy gérer temps doomam boo moytuwul euh, vacances bu jotee bu xale bi di ndekki mhm. acca dem leen fooy. dem leen dem leen fooy bu ko defee di ngay boo génnee vacances da ngay gis xale yi taxawaalu. tambaambalu mhm. boo demee géej macha allah. fekk mhm. fa lap yi bëri fekk fa xale yi guni mhm. ñeneen ñi commencé organiser li nga xamante ne mooy ay soirée wala. tànqal waa koñ bi. tànqal sonal waa koñ bi ne rek ñu ngi ci vacances. jël sa sa sa njaboot rek boyal loolu moo nekk lu yoon. ah vacances dañ koy gérer dañuy sabaru tàggatoo. dañuy sabaru tàggatoo xoolal fi mu sa yaay gis nga sa yaay fi mu ko génnee tamit fi mu génne. Ah, waaw sama xale bu lu ñuy tàggatoo di sabaru lu ñuy tàggatoo. ban la loolu amatul Sénégal. sul xorom dañuy sul xorom. xale yi seen maas dañu leen nuroo leen dama sax dama ne ko da leen nuroo leen. waaw li nga xam xam dara. Nabou Sall mooy def yooyu Nabou Sall koy def de. Mm. saa yu fekk école waay tëj. Mm. école waay tëj. waaw yoo jël xale nuroo leen woo saw ñaar sama daal ci ba déwén xalé dem jangi te ñun ak suñu xalé xale ñoom jangi te ñu leen dajale jangal leen dañuy jàng dañuy jàng alxuraan waaw dañuy jàng alxuraan ba nag ba pare suñu pare ki jiitalul ci doomam moom alxuraan ki jiitalul ci doomam alxuraan ñu na suñu xalé diko xaar ay 3 mois dafa am xale yoo xam ne mo moo leen xale xalé xam ne yaay yàlla mo leen yar seen yaay dañu bari solo wa yàlla mo leen tek ci yoon lool mo dafa am mom na day am lool mo dang ko gëna gis ñoo xamanteni seen yaay diw de yàlla ko yar mo moo mo seen wa kër nu ñu mel lool la ñu man de yàlla man xam nga yàlla ma yar kan yow ah yow kenn duñ laa yaru yow rek macha allah. wallaay caam li nga wax rëy na. Hmm. Ah, léegi tamit xale noonu la ñu suñu xale wax dëgg yàlla. Ah. suñu xale hmm. suñu jàngee alxuraan fi ne nii ñëpp dañuy jàng alxuraan yoo ko tëjee fii HLM. bu jeexee nag ba ñu waaj ubbi nag ñu jël sa nuróole daal sabar si buntu kër gi nag. gis nga caama am na parents yoo xam ne laay xaaruñu sax ñoom. vacances hmm. comme li waaj dëkk Kaolack wax. ñoom même euh, ci année scolaire bi ut nañu oustaz buy ñëw di fekk ci seen doom di leen jàngal samedi ak dimanche di gérer seen temps mhm. di toog seen njaboot yar dafa am solo ci nit yar dafa am solo ci ah, société waaye tamit bu ñu dañ toog ci oustaz yi vacances yi na parents yi def ay planning mhm. gis nga da koy occupé xale yi nañ def parents yi nañ def planning ne sama doom man vacances la 9h la yeewoo bu yeewoo 9h ba 13h day jàngi mhm. day jàngi par exemple Sénégal fii alxuraan bi la ñuy gën a jàng day jam jàngi alxuraan bu wàccee 13h

Mm-hmm. mooy dem na rek parent sax waxatu ko pour na nafar exactement yeewul heure bi mu doon yeew na jàng dañ naan dafa war nopp noppal day nopp bu ñëwee oustaz bi dafay sonnaat ndax alquran moo mel noonu moom boo koy bàyyi mu a bàyyi waaw wax na ni parent wala loo tabax soo demee am parent yoo xam dañ koy yaakaat loolu tabax pour ñoom bu mm-hmm. xale bi defee dara sax ah, dama lay booleeg yaa Seyda dinaa la booleeg seen oustaz mais en tant que yow parent luy sorul ci sa doom mm-hmm. lan ngay def ci sa doom lan nga ko mënal il faut parents yi bàyyi xel ne ëllëg dañ leen koy laaj dañ leen laaj ku nekk dañ lay laaj li doon sàmm surtout mhm. doom doom dafa fort nit dina ñëw yomal xiyaam indi lu ne ci baax mhm. dem na Màkka joxe na azaka doon na julli doon na woor yàlla xool dossier bi xool ni lépp c'est bon na Ridwaan accompagné ko mu dugg aljana mais day dem ba buntu aljana rek doom yi yuuxu yàlla ne waqifuuhum innahum mas'uluun yàlla xam lan lan lay wax ma laaka bi mhm. na taxaw dañ koy laaj ñan ñoo koy laaj njabootam yaa ma daan jëndal mini bi may sol kii na ko bu ma musaan di génn sam papa bu laajtee yaa may couvrir maa ko yónni yooyu yëpp dafay am fa lañ di nekk di jëlante ay àq ba ñu mujj ci kër gu bon ga fam fële bañ laa laajal sa doom waqifuuhum ah. innahum mas'uulun nañ taxaw dañ leen di laaj wàcc ko ndànk rek xam nga xam nga yàlla bu ñu tuddee dina day mel ni maa ko moom ah, yàlla yàlla yàlla dane yaa ayyuha lladiina aamanu quu anfusakum wa ahliikum naara waaye kay def lu li ko loo xam yaayam sant ko ko tam yaayam sant ko ko di mais yàlla xam na loolu sax ah, waaw kay sa Mohamed yàlla xam na way jur bi taxaw gis nga yàlla xam ko borom taxawaay yow nga taxaw sa doom bëgguma lii moom mu koy def nga xeex ak moom dóor ko xeex ak moom def nga ko lu ne ba gaañ ko te teew mu ngi def loolu. soxna Zeynab gis nga vacances yi la xale yu bëri surtout ñu am génération yu ñu am ay 14 ans jëm kaw ba 18 ans. na xale yi am jëm soxna Zeynab damay expliqué neen. Ah, euh, bi may nekk xale. Mm-hmm. macha allah manqué ma dara. Mm. mais bi may am 16 ans laa commencé fay ak 70 000 weer. ci centre d'appel yi. c'est-à-dire que seconde commencé naa su vacance jotee ma dem liggéey si centre d'appel cest dire que xale bi dafa war am culture amal boppam. Hmm. mais loolu yaa ay wéjuram ñoo ko fay sax. Ah, jom. c'est hmm. pas parce que da nga jàng trois mois ba mu jeex rek a da nga war a toog. Hmm. feetu. doo def dara ci vacances yi. mais xoolal monde rural bi. waaw bi. 3 ah, mhm. su a a mhm. jox ko seen papa ñuy jooju xam nga. waaw soxna Zeynab. <laughs> boobu jaara soxna laa la wax. Hmm. am na beneen tamit bu def ñun suñu génération liggéey bu ñu doon def. Hmm. bu bu bu bu vacances jotoon nii. Hmm. ñuy dem ci hôtel yi hôtel yi. di téye euh, doomu tubaab bi. waa jàpp xale. xam nga lu ma la wax. journée bi 10 000 lay fay par exemple. wala journée bi 8 000 lañ lay fay. am na Dakar. am na xam

dama yàlla ba ci kàddu li ngay wax nii day fekk papa ak yaay toog def ko ci doom jàngal ko jom jàngal ko fulla jàngal ko teel a jël ay responsabilité la tax mu yàqu loolu papa mu ak yaay ñoo koy def ci mais xale Sénégal nag wutuñ jom ba nanguñ liggéey pour ñoom liggéey ah, kii la non xeeb sa bopp la leneen la ñuy def ñoom ñoom leneen la ñuy def pour ñoom loolu hmm. sol sa ba jekk sol lu bon a bon dem seeti laay pay wala nga dem seeti keneen pour ñoom loolu mooy succès lay pay de boo ko boo ko ñaanee bu la joxee tamit après yow tam. maa moo tax nga dem Louis wax ni Louis wax ni. moo tax non pas lay pay yow boo ko ñu may ñu may ñu may ñu yàlla may wax. Hmm. jàpp xale boobu fan la am dina di nuyu. après ko tam dina mais soxna Zeynab. Hmm. pour wax ne gis nga góor. Hmm. lu may lu may lu ma gëm la. gis nga góor juddu la. goree di jikko la. nit si boppam moo war a am fenn foo xam boo fa tollee yow yaay jël sa destin. jël say responsabilité nga faire ko face gis nga tey jii nii problème mu éducation bi ñi ngi wax plage yi ñi ngi wax yëpp di xew planning bi mais am na foo xam ne xale bi sax moo nekk problème mooy ki nga xam ne dafa nekk entre trois ans ba treize ans hmm. mais li Louise di wax ki nga xam ne adolescent la kooku moom moo war a jël destin am mm-hmm. parce que tamit mënul yomb dafa am loo xam ne logique la gis nga parent bu la tegalee ay barrières tegal la nel nii ngay kii munoo yow nga jël euh, nekk vacance nga ne noonu damay nelaw ba 11h yeewu. Ah, soirée bu jot parce que dañuy am planning parce que soirée yi dañuy commencé programme yi moo tax. j'en profite pour ne aussi war na am na ñoo war nañ leen euh, contacter invité leen ci thème bi parce que aussi. Mhm. même média yi man je me rappelle euh, Jeune en Herbe da daan am ah. Euh, Nourette daan na ko def. Mm-hmm. Euh, jeune en herbe des des programmes yoo xam ne. Marème Samb la télé itam. Marème Samb Marème Samb ainsi de suite. Oh, nga xam ne daf lay occupé si vacances bi. Mm-hmm. donc tey jii nii occasion la aussi gis nga. si <laughs> fa léegi loolu yëpp amatul léegi pecc meek ndaw raam. dañ ko changé soirée yi nga wax sax xale dematuñ fa parce que soirée yi da ngay dagg ticket yu cher. Mm. dematuñ fa de. Mm. si biti la ñuy toog a xale yu góor soirée yi dafa cher. ndax boo duggee si boîte di nga fay ñetti junni wala ñaar plage yi moom boo demee fi nekk plage guddi nga ba set boobu bët sa lañ fay bu ñu di nelaw wa nelaw wa nelaw pour ñoom guddi fête guddi vacances léegi ana yaay ana papa surtout duñ liggéey yi tamit duñ koo ci ne baleel mu toggal mu bañ te ñun vacances ci la ñu jàngee togg yàlla baax na ñun yàlla dimbal nañu suñu maam Asetu Gueye daf ñoo yar daf ñoo ñoppati daf ñoo yar ñu mën a togg xam nu ñuy waxee mën a gérer suñu kër moom bu ñu yaru woon moom lu baax maam Astou Gueye moo ñor ñu ñëpp tëju si dañ daan am lañ leen teg dañ amoon néegu xale jigéen ñi la lay def nii. Hmm. pour la lay def xam nga la moo neexoon ci vacances. tey maa ne ñëpp sëy na. xam nga la moo neexoon ci vacances. Hmm. boo nekkee groupe xale yi def bêtise. ñu dëkk ci kër gi dañuy dóor dañuy dóor vacances <laughs> <laughs> ah, nii seen i mbokk la tax gis nga yaay. gis nga say mbokk dañoo vacances. Hmm. dañ lay jàng ni ko war a defanteeg ñoom. gis nga bu leen dee siis sax si dara. sa papa da daan wax daf la daan tere jox ko ñi say mbokk lañ. Mhm. sa mbokk lañ. loolu dafa baax loolu moom ndax da ngay def li tey xoolal ku nekk te yaa ngi sa ku nekk yaa ngi sa mais tey xale yi nekk ñu seen kër ñu ngi nii gis nga ñu ngi la koy won nii ñu ngi ci plage ay yu ndaw. xool xale yu ndaw xale yu ndaw. ñi sax boo demee ay libu lañ ñoom mën nañ géej gi. seen kër yi ñu ngi ci kenn tàgguwu ci nag. Mm. lap na nga waaw man ne du ma dem géej. daaw daaw dama taxaw dama fekkee benn benn séance bu garaaw xale yi ci vacances yi dañoo dem géej biñ demee géej ñi ñibbi di jéggi am ci seen moroom ku oto bi fiir waaw comme que tàggoo wuñu woon nanguwuñ ñoo wax fan la xale bi dëkk mhm. foo leen dëkk joxe leen numéro téléphone ñu ne ñu parce que xam nañ na bu ñu demee seen kër. te tàggoo wu ñu gi eh, tàggoo wu ñoon bi ñuy dem géej dañu dañ leen di. dañ leen di kii nii. tàggoo yàlla sàmmal. yal nañu yàlla sàmmal suñu njaboot. yal yàlla sàmmal mais xam ni ñuy gérer suñuy doom même bu dul vacance am na solo. wax ma la ak bu vacance ñu ngi xam ci biti si mu génn. def fois loolu am na am na caama loolu day am loolu rek laay ragal ma. laay luy sa euh, euh, ndénkaane. ndénkaane bi may wax daal di ko dénk sama bopp di ko dénk ñëpp mooy ñu xam ne Euh, waajur bu nekk sàmm nga te bu ñu nee waajur du ki jur dong léeg-léeg di nga bokk xale wala nga dëkkax nit sax nga nekk waajur si moom donc ko si nekk sàmm nga ñu jéem a suñu temps lu mu xat-xat-xat-xat ñu boole leen si parce que tamit ñoom si lañ bokk mhm. boo seetee ne yow dañ la jàppale ba nga mën a taxaw donc baax na tamit xale bi nga mag nga jàppale ko pour mu mën a taxaw mais aussi ñu xam ne vacance ni nga ko waxee du temps wu noppaloo ko mais dañuy jóge si benn étape dem si beneen étape mais juste avant ma terminer dina ma permettre ki nga xam cette fois-ci ni eh, boobu ba ni ñi ngi wax si noodu dóor eh, Ndiaga Ndour boobu ba dañuy déggante si ay émission yu bëri maax moom mm. moo may sax orienté léeg-léeg mais dafa bañoon génn si plateau yi mm. mais bion aussi am lo loo xam qui ñi ngi préparé vacances parce que ñoom aussi dañuy def programme ses vacances yi coup ko wax occasion la aussi mu ñëw ñu invité ko si plateau bi comme ça ñoom aussi ñu wax programme yi nga xam dañ koy étaler pour vacances et les yi nga xam kenn la rek ku nekk Sénégal. ñooñu fecc rek la ñuy jàngale xam ne jaru nga koy loolu jaru ngay wax de fecc dong la ak woy ak ak imité nit ñi yooyu lay. Thiam jërëjëf laay Thiam lu sën dénkaane est-ce que doo may ma ko. ma ko ba xanaa yàlla yàlla jubal suñu njaboot rek. amiin du jub jubal doom yëpp ñu teg leen ci yoonu siraatal mustaqim bu école tëjee nañ dem vacances seen tante ñëwaat te ñu jàng alxuraan. may nuyu nag ñëpp di nuyu nag abidaaba bu baax a baax. ak abida famille ñu ngi koy nuyu. sara xulle. Mm-hmm. may ni ma ne xànkare xànkare sama xarit sara xulle maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp. am ma ko am ma ko. alxubaare am ndoxo faane waaw sama ko bii di aérodrome mm-hmm. ma leen nuyu abidaaba sama doomu ndey nga xamante ni. Mm-hmm. démb ba tey man ñoom. macha allah sama doom jooju sëy nag sëy bi yàlla na ci yàlla def barke. amiin amiin lal ba tooy te bañ tooy ak ay rencontre ci barke Seydina Muhammad. amiin sallallahu wa sallam ñëpp waaw. amiin mu ñëw. waaw d'accord di nga ko liggéeyloo ba mu ràpp sama caissière bi. dina ko dëbbuloo ba mu ràpp <laughs> nii lay def xam naa ko. soo leen may wax ni parents yi nañu bàyyi xel ci vacances yi am tal seen tal seen doom yi. defar seen planning may yu meer lum nga xam ne moom xale yëpp ci moom la ñuy ñëw vacances. Mm-hmm. maa ngi nuyu meer lum bu baax a baax sama maam jooju. léegi nag man sama ndénkaan dama koy Ousama Ousama Mohamed am liiral ma lii. Mm-hmm. sa ndingaan man déedéet waaw maa ko digoon euh, euh, téléspectateurs yi ñaan bi nga xam ne soo ko ñaanee soo xëyee wax ko trois fois guddul kenn du la sàcc pour mu leer mhm. doo lakk doo dee ci lakk doo dee ci lapp boo ko mënee ah? est-ce que doo ko def sa poche est-ce que doo ko def sa poche kenn du la sàcc guddul dafa gudd Oustaz Mohamed kii ko bismillahi ma sha allahu wala quwwata illa billah ma sha allahu kullu nicmatin min allahi ma sha allahu alxayru kulluhu jayyid allahu ma sha allahu la ah الخير كله بيد الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله آه، لكن عبرك après man ñu ma wax nañ ma woo parce que man jot ma yombul mais daal xam naa ni waaw xëy na Oustaz Alpha Diallo dinaa ko jox jox ko numéro jël numéro moo ma gën a disponible waaw ku ko wax kenn du la sàcc doo la doo lakk saxaabi bi ko waxoon de bi ñu ne ko koñ ba tàkk na hmm. dana leen sama kër sama kër tàkk waaw mi ngi noonu ban mi ma jàng ko rek Lise jërëjëf merci Oustaz Laye <laughs> Paye eh, Oustaz Laye Paye laa a wax waaw ah. <laughs> merci <laughs> na eh, nee nañ ku ko woote régie ko laajte may te dina la jox ñaan gi incha allah <laughs> ale moo koy joxe wala Benoît waa moo koy joxe kon mi ngi noonu mbokk téléspectateurs yi incha allah dinañ koy dinañ koy liir chaque jour pour am ñu bëgg a jël note pour ñu mën a jël note bu soobee yàlla euh, tey lii moo nekkoon euh, waxtaan wi éducation naka la ñuy gérer suñu njaboot euh, pendant des vacances ba trois mois yi waaye lu loolu yar moom toujours yaak moom ak xale bi ndax soo faatoo dañ la koy laaj suba mooy dàq incha allah dinañ am invité bu teew faram-fàcceel ñu éducation ci boppam moom mooy lan kon ñu yendoog jàmm waa régie jaajëf caméraman yi jaajëf téléspectateurs yi yéen tamit jàngeen jëf ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah